وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بركب خادم الرسول صلت لي سترا بن أنسل السورا جماعة الخلق والمحسن السورا سترا بنان سلا سوارا جماعة الخلق والموزين الصورا بنان سلا سوارا سوارا جماعة الخلق والموزين صلت لسترا بننزل الصورا جماعة الخلق والموزين الصورا صورا جماعة الخلق والموزين صلت لسترا بننزل الصورا جماعة الخلق والموسين صورا بن أنزل الصورا جماعة الخلق والموسين صلت لي سترا بننزل الصورا جماعة الخلق والمحسن صورا بننزل صورا جماعة الخلق والمحسن وججات لله وعبد الله أبدا ساخمة لرسول لله عيك الكبرى عبد الله أبدا لرسول الله جيجاتو واتلو عبد الله ابدا لا اله الا الله ساخمة لرسول الى عيك الكبرى جاتو واجلو عبد الله ابدا ابدا اخمة لرسول الله لرسول للعيك الكبرى عبد الله أبدا للرسول الله وجهت واجلو عبد الله أبدا لرسول بلا عيك الكبرى حب النوى أبدا للرسول الله وجهت وجهي له خدمة لرسول الله كالكبرى حبدا أبدا أبدا كسب ينتبه وجهته أهيلا حبدا له أبدا أبدا ساخمة لرسول لله كالكبرى أبدا أبدا أبدا وجهت وجهيلا حتى لو أبدا أبدا ساخمة لرسول للعيك الكبرى أبدا برسول الله نبي أودي بعدال يال مطحنا فلتان بيت صلاة دو يوري سلك بارا أبدا رسول نبي أودي لا بعداليا متحنا فلتان أبيس صلاة دو يوري سلك بارا نبلا أعلى ينهج إلا إلا للخل ديونا ما تحمتسي بالسبخة والحمارة أبدا نبلا أعلى ينهج إلا إلا للخل ديونا ما تحمتسي بالسبخة والحمارة نبلا على يلهج لا إلا للخل ديونا ما تحمتسي بالزبخة والحمارة
ku jóg taxaw ca kaw njukkal sëñ Touba yàlla nga tàggoog tànk yu metti jóg leen taxaw ca kaw jaay njukkal sëñ Touba jar na ko
نبلا على يلهج لا إلا للخل ديونا ما تحمتسي بالزبخة والحمارة نبي خلف قلوب الهدايا ربي في أمري بنظرتي والفار لجملة الأمارة نبي علي عسل وسلم بالكرام وهب بي لي الأمن في الدارين والبصارى نبي علي عسل وسلم بالكرام وهب بيلي الأمن في الدارين والبسارى دعوتك اليوم ساخر للعدا أبدا هد للعين وار للجلنا والبسارة نبي تركت في رجب ما أنت أنت تعلم فلتكفيني أوك للآية والسورة
رجب ما أنت أنت تعلم فلتكفيني أوك ku bëgg sëriñ Tuuba taragatoo fi rajabin ma anta anta taalamu fal dagg fi li awab lil aya wassuwara
رجب ما أنت أنت تعلم fi li ku bëgg sëriñ Tuuba taragatoo fi rajabin ma anta anta taalamu fal dagg fi li awab lil aya wassuwara
رجب ما أنت أنت تعلم
نبي تارغتو في رجب ما أنت أنت تعلم فلتغفني أواب للآية والسورة
رجب ما أنت أنت تعلم وقبلي كبك سرين توبا تارغتو في رجب ما أنت أنت تعلم فلتغفني أواب للآية والسورة
رجب ما أنت أنت تعلم وآب ku bëgg borom Tuuba taragatoo fi rajabin ma anta anta taalamu faltag fi le waaw lil aya wassuwara
رجب ما أنت أنت تعلم waawal nabi abli xoxo danti matar daa oomel amalel asant kulliyaya man asana suwara
رجب ما أنت أنت تعلم وقبلي آية واسعة nabi abli xoxo danti matar daa oomel amalel asant kulliyaya man asana suwara
رجب ما أنت أنت تعلم
إلي وأب للآية واسعة نبي فإن أروة الوسخى فممسكها خدن يفوس لدى مولى بجنات لم يفوز لنا مولى يلا ندم الجنة خدن يفوس لدى مولى بجنات أحدا يفوز mawla yàlla nu dem aljanna xadan yafuusu la dal mawla bi jannaat mawla su ëllëgee xadan yafuusu la dal mawla bi jannaat أحدا يفوز لنا mawla yàlla nu dem aljanna xadan yafuusu la dal mawla bi jannaat ku jóg taxaw ca kaw njukkal sëñ Touba yàlla nga am jàmm jug leen jaay njukkal sëriñ bi mawla xadan yafuusu la dal mawla bi jannaate أحدا يفوز لنا mawla yàlla nu dem aljanna xadan yafuusu la dal mawla bi jannaate أحدا يبات لنا المولى بنا alga xadan yafuusu la dal mawla bi jannaate أحدا يفوز يفوز لنا مولا فالك خدم يفوز لدى مولا بجنات غدا يفوز لنا yal na nu janoo maam Serigne Touba soo legee Mbàkke xadan yëfu su la dal mawla bi jannaati غدا يفوز لنا yal na nu janoo maam Serigne Touba soo legee xadan yëfu su la dal mawla bi jannaati غدا يفوز لنا gis la moo dàq dem aljana soo legee xadan yëfu su la dal mawla bi jannaati غدا يفوز لنا mawla mawla xadal yëfuusu la dal mawla bi janaati غدا يفوز لنا المولى بجنات mawla xadal yëfuusu la dal mawla bi janaati غدا يفوز لنا
mawla ana soppe maam Serigne Touba xadal yëfuusu la dal mawla bi janaati غدا يفوز لنا المولى mawla xadan yëfuusu la dal mawla bi jannaate mawla mawla xadan yëfuusu la dal mawla bi jannaate mawla ana soppi maam Serigne Touba xadan yëfuusu la dal mawla bi jannaate غدا يفوز لنا mawla mawla xaadim dem nga sarsara naar yey siyaara doomi doomi maam jaara yaa seen xobaam ahmadu mbay ahmadu ahmadu ahmadu ahmadu ahmadu mbay ayu seex mustafa dem nga sarsara naar yey siyaara doomi doomi maam jaara yaa seen xobaam ahmadu mbay Ahmadu Mbay Ahmadu Mbay ayu Seex Murtada na nga seene yaatal nga diina woon nit ak nit ak jinne daaxi na jaay Ahmadu Mbay Ahmadu Bamba Ahmadu Bamba sëriñ bi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu Bamba seex Ibra Faal maam Cerno seex Mandumbe seex Masamba seex Anta Mamor Jaara seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu Bamba Sëriñ Daam Abdourahman Mama Samba Joob Saam Seex Adama Seex ma baabu gi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fi ay seex yaa seexu Bamba Seex Daaru Asan Njaay Seex Anta Toog Seex Saaje Mbay Fan Njaga daa bay Maam Sey Njaay Fan sa tollu waay kawe na yaay waay ay waay Bamba Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal Sëriñ bi yaa maata doyloo yaa gaaw nooy walloo yow rek a béguloo rabbi samaay ku bëgg Sëriñ Tuuba yëkkatil say baaraam ca kaw nu màggal borom Tuuba borom Tuuba bi yaa ma ta doy loo yaa gaaw nooy walloo yaa rek a bég loo rabbi samaay so Ahmadu Bamba sëriñ bi yaa di di dëkkaale allahu taale yaa mën a taale yaa saati yaay allahu yàlla borom Tuuba say wax laa doy loo loxo say wax laa doy loo say wax laa doy loo maa fuus ngay solo yàlla la way loo yaa saati yaay mbooloo mi ku bëgg Serigne Touba na jóg taxaw ca kaw màggal ko ku ko def yàlla nga ko def déwén jóg leen ca kaw jóg leen borom Touba boole nañ ko gaynde gaynde ga mel nem xar mu mel nem mu koy aar waxatal xanaa Amadou Bamba borom Touba yaa wiital yàlla ahasa wa jalla man tay ma wayla bisa sanaay ahasa wa jalla ahasa wa jalla man tay ma sëriñ bi kii la yàlla yëg ku taax ba daar jógu am nga noo demee baanil ximaay ku tax badar jóg ku tax badar jóg am nga noo demee yaa ci jaara woo ngir yow suri woo mbinga mu bawa min si samaay Amadou Bamba mbinga mu bawa barke bu soobe say cosaan barke bu soobe say cosaan sëriñ bi barke bu soobe say cosaan sëriñ bi barke bu soobe say cosaan ñey du sigéeñ bambulaan ku nu siyaare yàlla na naan ci géej gi ahmadul mbakiya barke bu soobee say cosaan ñey du sigéeñ bambulaan ku nu siyaare yàlla na naan ci géej gi ahmadul makiya xaadim rasuulillaahi borom tuuba borom tuuba borom njaareem seyxul xaadim seex ahmadu bamba dafa nii nu màggal xaadimu rasuul barke mu soobee say cosaan ñay du si géej ba mu laan ku nu siyaare yàlla na naan ci géej gi amadul mbakiya Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba barke musoobe say cosaan ñey du si géeñ bambulaan ku nu siyaare yàlla nanaan ci géej gi Ahmadul Mbakkiyo sëriñ bi woo nan la daaw di la dagaan daaw daaw jéeg nu woola di wayaan ren noo ngi wax bay coroxaan wuyu nu ahmadul mbakkiya borom tuuba borom tuuba borom tuuba woo nan la daaw di la dagaan daaw jég nu woola di wayaan ren noo ngi wax bay coroxan wii nu ahmadul makiya borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba wii nu mbàkke noo la woo nelawoo te tànqam lu woo ngotoona yoo tànqam lu woo yokku na ahmadul mbakkiya sababu xaybati yaa ana la arada ana naa la minu jaam waana koona saafiyan li xawmi waana kon xaadiman fi dawmi insha allahu sil isati sil mulki wal malakoot borom tuuba duma dañ di la santati xaadimu sil madinati borom tuuba noo ngi lay siyaar ànd ak yéene di ci fas ñaar nga boole nu ca say axyaar ña la doy ci sab xidmati xaadim rasuulillaahi borom tuuba borom tuuba borom njaareem seexul xaadim seex amadu bamba ana soppe maam borom tuuba yaa ni ma seex noo ngi lay siyaar ci darajaay sa daraja ak di la jaay su lépp yaay ngeen ngi waay gën nga képp ku ñuy wutee borom Touba yaay ngeen gi lépp lu ñuy xam yaay ngeen gi lépp lu ñuy am yaay ngeen gi képp ku ñuy jëm gën nga képp ku ñuy seet borom Touba sant nanu ban la gëmee sant nanu ban la xamee sant nanu ban la amee xaadimu silfa diilate borom Touba lu ma la way lu ma wér la lu ma yëg la te lu ma dund la lu ma xam la loo ma wan la ci wanu biir ci wanu biir ak gobbiti borom Touba lu ma rawee lu ma wér la lu ma yëg la lu ma dund la lu ma xam la loo ma wan la ci wanu biir ak gobbiti borom Touba cofeel gu wér mi ngi ci xam sëriñ bi loo gën a xam nga gën a gëm loo gën a gëm nga gën a am cofeel ak gëm ak niyete tagg la mooy def ci man mbég tagg la moo may dolli yëg tagg la moo may mayu njëg ci lépp lu ma bëggatee fu ma tollu yëg sa teewaay borom Tuuba fu ma tollu yëg sa teewaay wan nga mën a yaay ngeen gi waay wér nga rafet nga taxawaay wér nga rafet nga taxawaay ubbi nu baabal xayraati sëriñ bi koo nangul yàlla nangul ko koo gërëm yàlla gërëm ko koo jox buur bee la jox nga jox ko jox nu ayaa sa nimati sant naa la gërëm naa la wóolu naa la doyloo naa la nekk di sunu jànnate borom Touba sant naa la gërëm naa la wóolu naa la doylu naa la bëgg naa la sopp naa la nekkal di sun jannati jaa jëfati yaa xawsanaa jaa jëfati yaa sayxanaa wasilati li rabbinaa silati wa samaat jërë ngeen jëf yàlla nañ ko teewe ay diwén yu bari te lépp lu nu fi wax yàlla na ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nangu moom mi nga xam ne ku mu nangul rek lépp baax yàlla nangu mboolem li nu fi wax lépp nangul nu mboolem bayit bu mas a yëkkati ci àdduna bi yépp barki sëñ Tuubaa di ñaan ci yàlla ak Cheikhul Xadim Cheikh Sidil Mokhtar yàgg fi téwér ba yéenam ci Cheikh Ahmadou Bamba ak yéene ji mu am ci jumaa ji yàlla lépp sotti ci loxoom ban julli ko barki Cheikh Ahmadou Khadim di saare sëriñ Ibrahima Mbay ci bis bi di ko ci ndokkeel di ñaan yàlla na ko yàgg woote yàlla dogal na nu xaw cee géej lool moo waral tey bi nu ñëwee ay sekk mi bàyyi léegi di sunu mag nun ñépp di siyaare sëriñ Xaadim Géey moom it mi ngi nii di kilifa ak jotaay bi di sunu kilifa nun ñëpp ak sëriñ Mara ak mboolem ñi fi teew ñëpp di ak sëriñ Ousmane ak mboolem jànkati xasaay yi dem yëpp maa ngi leen di ziara di beral ab nuyoo sunu sëriñ bi nga xam ne moom lañ di àndal muy cheikh Mouhamadul Fadal moom cheikh Mourtada moom cheikh Mouhamadul Fadal moom Xaadim Rasul di wala réew sëriñ Ibrahima mu wax ko bis bi.